dañoo fas yéene am solo. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox TV nuyu ti naa leen ziarati naa leen ñaanal te leen jàmm sàkkoo ko ci yéen. di leen ko ñaanal di ko sàkku ci yéen di ko ñaanal àddina bi yëpp barke yonent bi sallallahu tey nag ñu ngi si aljuma mu tombeek le 2 juillet 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dé ngeen déglu li nga xam ne moom la journaux yi indi tey ñu xool lan moo fa xew ñu dikkaat ak yéen si plateau bi xulle ñu dem asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 2 juillet 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy dooret ko yëglikaay bi di suñu làmb tey xëtam bu njëkk lam ci xëy fesal lenn la maanaam li nga xam ne nii maanaam daal moom moo di li war a am di ay combat yoo xam ne yu mag a mag la muy VIP yi nga xam ne war na ñoo wàcc ci arène bi ren boo xoolee ñoom ñëpp ku ci nekk lekk nga avance wala nga lekk sax ay avance yëglikaay bi xëy na tey nee na Ama Baldé B52 Balla gay numéro 2 Modou Lo ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne daal ay VIP lañ nee na daal li am ba des moom seen retour bi est-ce que nekkul risque maanaam parce que nag dafa jàpp ne ay ata ngi yoo xam ne ñett ba jàpp yeneen at yoo xam ne ñoom kenn ci ñoom wàccu ci làmb ji bëree moo tax yëglikaay bi jàpp ne day est-ce que ñii nekkuñu di def ay risque yëglikaay bi moom moo xëy tey jàngat lu mel ne ki noonu rakki Balla gay numéro de moom de Sa Thiès yëglikaay bi ñëw na ci futur adversaire am mu mel ni ki nag boo xoolee yëglikaay bi mu ngi koy xool ci rëg-rëg ak tafaatin Tine yëglikaay bi daal nee na maanaam Sa na muy def ba mën a jàkkaarloo ak ñooñu sunu làmb moo xëy dinu wax lu mel ni ki noonu rëg-rëg ak guy gi tamit am na keneen koo xam ne ni mu ngi cay wax kooka nag dëkkandoo rëg-rëg la di Ousmane Diop nekkoon fi champion bu mag a mag dëkk ca Caaroy Géej Ousmane nag moom nee na rëg-rëg boo bëggee dégg dëgg daal ah man naa lëndëmal wala mu yàq la nga xam ne moom moo di yoonu guy gi loolu ka ko wax du kenn ku dul Ousmane Diop keneen koo xam ne wax na moom kër la tudd sant John moom nag ci combat wu dimanche bi la ñëw maanaam soog bi am la 4 juillet ca Iba Mar Diop te Assane Ndiaye boobu production tëgg ko muy maam Balla ak ki nga xam ne moom moo di mbay guy gi nee na maam Balla day mbër la moo xam ne nii day ah calculer ko jafe na trop trop ndax nag la muy def da ko man yemu ca mbay guy gi tamit la mu gis ci moom nee na la moo xam ne fi mu nekk nii moom engagement ak ambition da koo am ak détermination ba mu doy sëkk sëkk sëkk keneen koo xam ne wala beneen combat boo xam ne suba lay am fa nga xam ne moo di ca stadium Iba Mar Diop ka ko tëgg di Mbaye Yékini mu war a dox ci diggante ka nga xam ne moo di ndongolo ak Cheikh Tidiane Niang yëgli kaay ba nag ka mu xëy tey dëkk ca micro muy analyser combat ba mooy soose di ab entraîneur nekk ca face ne ñaari mbër yi ñu boole daal ne na Mbaye Yékini moom ñi mu boole loolu waay mën a wax moom ay bërekat lañu muy Cheikh Tidiane Niang wala ndongolo yi moo tax soose daal jàpp na ne daa ab combat la de boo xam ne ni daal suba ku ko seetaan boo sàgg ne bu jël di am da nga gis jël bu rëy rëy rëy keneen koo xam ne ni moom Vieux saako lan kay wax moom nag moom mooy président jàppandal production ñëw na tamit di wax maanaam daal ca la nga xam ne ni moom la bëgg wala la ñu bëgg yëglikaay bi xëy na tey wan ñu ko ci xëtam wu njëkk moom sunu làmb ba bu nu continuer ci biir yëglikaay bi di sunu làmb tamit mu ngi nuy wax ci combat bi nga xam ne ni daal moo war a am ci diggante ka nga xam ne moom mooy général bu Fass ak Koli Faye combat ba nag suba arène national lay ame Sambay Fall moo fa jaar yëglikaay bi ne daal ab derby bi lay doon ndax ku ne xam na ne fas moom ak yi ku jeg a yàgg na moo tax yëglikaay bi ne na derby bi capital ka ko wax nag wala ka xëy di ca wax boog mooy ki nga xam ne moo di ab menacé di Pala Diop moom jàngat boobu daal la gis ci boobu combat ne na daal derby bi du gën a rëy général bu fas ak Koli numéro 2 beneen derby boo xam ne day am war a dox ci diggante waa jàmm gën ak waa parcelle mu mel ni ki nag face à ba nga xam ne def nañ ko bërki dem ca Ibamar Diop yëglikaay bi xëy di ci wax mooy les arènes la mu gis daal wala lam ñu wan ci aw photo mooy sa tak papa Sow ñu nga jàkkaarloo papa nga solub kabam yorub kaalaam sa tëb micro moom itam solub kapisom Boubacar Diallo dijje bu su i rajo taxaw ci seen diggante maanaam ñaari mbëlee nag yëglikaay bi nen boo xoolee ci ascendance maanaam wàllum physiologique moom ah boo bëggee dégg dëgg daal ah c'est daal daa mel ni papa Sow gagné na ko 4-0 ka ko wax nag daal ñoom ñoo def boobu jàngat loolu na promoteur boo xam ne mu nga xëy di leeral ca les arènes muy Boubacar Niang moom na daal Pape Abdou Fall seen kuréelu promoteur yi Boubacar moom mu ngay dëggal ne Pape Abdou Fall dafa démissionné woon de nee na lu wax ji mën a bëri ak lees mën a dem mën a dikk daal moom daal li mu xam mooy Pape Abdou Fall moom démissionné defoon na ko keneen koo xam ne yëglikaay bi bi ñëw na ci moom mooy Abdou Diouf bu waalo ak combat bi nga xam ne ni tamit moo koy xaar dimanche ji nu jëm ci national te jiy production jaar fa mel ni ki nag yëglikaay bi ne na trois équations yoo xam ne mu ngi xaar Abdou Diouf daal yëglikaay bi ñëw na ci maanaam ay ñetti mbir yoo xam ne mu ngi koy xaar ci boobu combat nga xam ne war na koo bëre ginnaaw suba moom ak ka nga xam ne ni moom moo di Gris Bordeaux wala boob Gris de di rakku ka nga xam ne ni moom moo di Gris Bordeaux yëgle kaay ba moo xëy tey dikkal ci lu mel ni ki noonu buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di ca Equivox TV mel ni ki tam foofa tamit démb day waxoon na xaat la ko waral nag moom mooy idaali ñi ngi mi ngeen xam nga xam ne àllarba ba jiinu jëm daal moom moo war a tëgg ci national nationale combat boo xam ne daal ab tournoi la war a dox ci diggante caatu Daouda Fall ak ka nga xam ne ni moom moo di ka nga xam ne moo di albarka kayre yankaaw junior ak ka nga xam ne moom moo di kaaw gourdin waaye combat bu mag ba war a dox ci diggante Ronaldinho mu tëngéej ak koña mu kolobaan yëglikaay bi nag wax nañu daal wala bu ngeen seetaanee di ngeen fa gis xale yooya mel ni ki démb nag ñoom dalal nañ leen fii ñu def fi benn jàkkaarloo boo xam ne direct la woon waaye ndaa daal waxante ga metti woon na lool lool lool mel ni kon idaali ñu ngi daal moom itam ëndeeti na lu doyo doyo doy waar mel ni ki nag yemu ca de ndax dugal na ca beneen combat boo xam ne bu nar tàng lay doon te ñaari mbër yëkku ner seq teel nañ koo tàngal muy diggante Ahmed Lagros ak Mbaye Diop numéro 2 ñu gën koo xam ci safara ñooñ tamit diggante nañu lu méttee métti ku ci nekk nee nga sa moroom bu buñ ci yeggee dinaa la def loo xam ne nii boo duggoon sax ci sa biiri mbokk danaa la fa fekk duma la bu dumawaale say mbokk du samay wax nag Ahmed Lagros ak Mbaye Diop numéro de di di ki nga xam ne moo di safara mbët mbër yooyu ñoom ñoo waxante loolu fa nga xam ne moo di ca Equivox TV mel ni kon daal xulle boo bëggee dégg dëgg moom làmb ji fi mu nekk nii jaxlan suba samedi ba dimanche arène nationale Iba Mar Diop ca stadium ba foofi aw da ngay seetaan làmb sans compter nag mbapat yi nga xam ne ni day am maanaam mu mel ni kon làmb ji fi mu nekk nii sàjj gi moom foo ko takk weesu na ko li ñaan rek promoteur bu ci organisé yàlla na ci génn ak jàmm ndax nag ku dugal sab xaalis ci mbir di bëgg jox ay nit am xëy la ñuy ñaan boo leen joxee am xëy ba ñu jariñu yow ma leen ko jox tamit yàlla na la yàlla dimbali ba nga jariñu di wax ne que tey la àjjuma yal na yàlla def jàmm Sénégal waaye yal na ko yàlla def ci àddina bi yëpp barke yonent bi sallallahu alayhi wa dégg ngeen ko loolu moo ñëw te ci yëglekaay waaye comme fa ma ko tëjee rek fa laa waate muy tey aljuma di bés bu sell di bés boo xam ne sangu bés yi la ñu ñaan yàlla rek lépp luñ ci jaamu ñaan ko si ci jumaayeeg jàq yi yàlla na ko yàlla nangu te bu nangoo yàlla na la wàcc ci Sénégal mu doon mbégte dàqal ñu feebar yi njàqaar yi ak tiis yi waaye def ko si àddina bi yépp parce que tamit loolu moom yàllaa nu ko sant ñun ay jaamam ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen kon ñu ngi koy ñaan lool ci barke yawmal juma yàlla na ko def barke yonent bi sallallahu alayhi te yàlla moom dara tawu ko xanaa kay ni tey am lu ko të waaye rabbi samawati wal ardi moom amut lu ko të xule noonu la demee hmm? bu nu ñëwee nag tey ci yëglikaay yi fi ñu koy commencé sunu làmb xeeti na ci xëtam mu njëkk jàpp na ne ñii nga xam ne ñoom ñooy ay VIP moo xam Bombardier la Ama Baldé Balla Gaye 2 Modou Lo ak ñeneen ak ñeneen risque daal la la jàpp ne seen retour yi du doon risque ci ñoom ndax nag yëglekaay bi daa jàpp ne toog nañ ay at yu bari yoo xam ne wàccuñu si làmb ji ñetti at ba jàpp lu ko ëpp sax am na ci ñoo xam ne sax est-ce que pléwuñu loolu moo tax yëglekaay bi jàpp ne est-ce seen retour bi du nekk risque waa damay wax ne daal ak lu mën a xew euh, àddina moom lépp risque la parce que bi nga xëyee xule yeewu ne ci salal wàcc say tànk ah nelaw ba yeewu ne alhamdulilah sant sa borom war a dugg ci sa toilette defaru génn war a liggéey loolu lépp ay risque la parce que li tax mooy yàlla moo yor bakkan bi moo yor dund gi waaye moom fi muy waxee ci côté sport lay waxe foofu tam mën nañ fa dégg parce que ñoom ñëpp ku ci na tey muy VIP yooyu ah bi li nga toog bëre yàgg na te loolu tamit dina perte loo repère sportif loolu moom lu am la waaye boo xoolee ñoom ci seen biir ñoom ñoo seqaat bëre boobu mooy les VIP xay na bu am nañ bu fekkee am nañu leen rax mooy les jeunes yi dugg si fekk si leen muy Ama Baldé ak booy Niang waaye Tapha Tine gëjoon na bëre su ma jumul 2018 Bombardier mi gëj na bëre yaakaar naa 2019 ci diggante ak Eumeu Sène la woon ah ba muy ñàkk couronne roi des arènes bi bala Gaye de gëj na bëre moom tamit diggante ak Modou Lo bi mu koy gañee toog na lu yàgg bëriwul Gris Bordeaux mook Balla Gaye de mujj a bëre Balla sa bëriwaat na ci ginnaaw bi ah ñoom ñëpp Modou tamit gëj gëj na bëre ci diggante ak Eumeu Sène Ama Baldé noonu Ama Baldé Papa Sow la mujj bëreel moom tamit su ma jumul loolu 2018 la woon mu mel ni kon ñoom ñëpp ku ci ne gëj nga bëri mais loolu li ko waraloon lenn la rek maanaam bokkoon na ci xëy na ah euh, parce que tamit seeni combat dafa diis tey du promoteur yëpp a ko attan ndax olof ne na bët du yenn waaye xam na lu bopp attan am na promoteur yoo xam ne tey man Babacar du ma leen digal na leen dem leen tëggi Balla Gaye 2 ak Modou Lo wala tëgg leen Gris Bordeaux ak Eumeu Sène wala nangam parce que li tax mooy attanuñu ko parce que tamit. olof ne na def la nga mën wax la nga mën soo tëddee nelaw tey defe naa kon loolu bokkoon na ci li gën a na indi problème bi parce que li tax mooy boobu suñu papa Gaston Mbengue retiré woon na gisatuñ ko woon ñaa ngi dégg Luc Nicolaï yàlla dogaloon mu nekkoon ci ay jafe-jafe yàlla génne na ko ci loolu yàlla na gën a continuer Pape Abdou Fall moo fi nekkoon daan leen orgi daan na ci mais tam mënu ko a tëgg lépp après par la suite nag Pape Thialis Faye ñëw na am lu mu ci jotoon def ci benn saison 2018 boobu après par la suite tamit affaire ba ñu jógee ca dugg 2019 ñu papa Gaston Mbengue retour indil ñu Modou Lo ak Bal ak euh, Balla après par la suite ci lay affaire yi amaate ñu commencé affaire yi commencé di ñu amaat yaakaar ci retour Gaston ak yeneen ak yeneen ak bi ñu bàyyee lit mais lit ñu bàyyee ko teewaat ko yu yëpp bokkoon na ci li xam ne teewoon na leen bi ci des mooy corona bi tamit ñëw gën leen a tënk ndax bu doon kon corona bi ñoom ñi ñëpp ku ci ne daaw bëre woon waaw ñu ci bëri si ñoom mais malheureusement loolu moo amoon a ah, mais nag àddina nag kon moo tax nga xam ne bu leen xoolee ci côté sport ah, toog nañ temps bu yàgg moom wax dëgg yàlla kenn ci ñoom compétirul waaw loolu moom am na loolu nag boo amee ci sportif ah retouram a ah, bu liggéeyul dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mën na am lu ko bett parce que tamit toogaay bu yàgg boobu mën na am lu mu lu mu wàññi ci yow waaye yaakaar naa ni ñoom ñii ñëpp ku ci ne amoon nga xel mu toll ni yàgg yàgg di nga bëriwaat te bàyyeegoo ndax sa carrière mu ngi continuer kon yaakaar naa ñu ngi woon ci seen ay entraînement te xalaat naa ne ku ci ne bu soobee si yegsee boo summee ko dinañ xam ne yaa ngi doon liggéey loolu mooy loolu mooy làmb ji bu ñu continuer Sa ay futur adversaire am yëglikaay bi nee na tey ah est-ce duñ ko xool ci diggante maanaam rëg-rëg tafaatin waaw ah ça dépend parce que daal loo ci mën a dégg bëri dem moom Sa Thiès diggante ma rëg-rëg doxoon nañ ko defe naa ne moom mii di Sa Thiès ak staffam xam nañ ne doxoon nañ seen diggante rëg-rëg ay promoteur ngi fi yoo xam ne doxoon nañ ko am na lu ñu waxante woon la ko teree taxaw nag xay na ci ñoom ñaari mbër yi la wala muy ca promoteur waaye sax dama naan est-ce que promoteur ba ndax promoteur bi moom su jógee dox si combat yaakaar naa ne muy bëgg mooy taxawal ko waaye daal xam naa loolu amoon na waaw quant à diggante ak Tapha Tine ah, euh, dafa am lu am Sa day bëre ki nga xam ne wala Tapha Tine day bëre ki daan Sa muy booy Niang booy ñaa moo daan saa ci jël bu rëy bu yàggul Tapha Tine jël tey booy ñaa xamuñu lu fay am su dee booy ñaa da koo daan su keroogee diggante Tapha Tine ak Sa Thiès manees na cee xalaat ndax dañuy bokk leen daan booy ñaa toog ci victoire Tapha kii bu fekkee nag tafaa dafa daan moom pour booy taf bu Sa Thiès jot ci tafaa léegi moom loolu lu jafe lay doon loolu moom na leer lu jafe lay doon loolu moom am na bu nu continuer Ousmane Diop bu Caaroy le grand champion ñu koy nuyu la technicien ah ku ne yaa ngi fàttaliku digganteem ak Balla Gaye de ca démb Diop bëre bu metti ba hmm? laay Ousmane Diop nga xam daa mën a bëre loolu defe naa ca kalaafu Gaston Mbengue bala woon muy ko doy waar Ousmane Diop euh, moo xëy tey di wax ne na rëg-rëg peut guy gi waaw maa man na ko daal indil ay problème wala mu dugg wala mu jaxase ko waaw lu mën a nekk la parce que làmb ah, que tamit Euh, rëg-rëg comme li may wax rek ci làmb man duma ko miimal dara man daal rëg-rëg daan na mbër du information ci man man Babacar wax dëgg yàlla parce que li tax ma wax loolu mooy li ma ko gis mu di ko def ci làmb la li mu def ci lit simple bi ñëw ci lit avec frappe bi continuer ko MMA bi kazalika naka noonu kon su daanee guy gi man pour du du nekk loo xam ne man lu may bett lay doon waaye su ko guy gi daane tamit du ma bett parce que li tax mooy guy gi dafa mën a bëree wax naa leen ko guy gi dem na ba dem équipe nationale wax naa leen ba tàyyi ne la ko fa dàqe mooy lekk gu ëpp dañ leen ne bu ngeen xëyee lekk leen salaat ak ay affaire guy gi xëy dem ca borom waañ wa ne ko ginaar laay lekk ki xub ko xam nga xam naa xale bu jigéen ba tiit xaw nga guy gi affaire am ñu defal ko ginaar mu lekk bu suur ñu peese ko poids ba ëpp gaa yi dàqe ko INSEPS bu cees liyee ko fa jële kon bu mënu woon a bëri du dugg foofu Habib yaa ngi dégg kon ñoom ñaar ñëpp ku ci ne combat dëgg nga jël te ku ci daan sa moroom man Babacar awma lu ma ciy bet guy gi yàgg naa dëpp reeru xale loolu mooy li am kon mbër la boo xam ne ku ko bàyyiwul xel tamit wala nga koy xeeb mun ngaa xeebu xel mu lakk sa dàgg mbër piir la rëg-rëg moom waxaale su soose wala boog Babacar Dione moom ñëw na ci combat Mame Balla ak mbay Guy gi bi war a am dimanche la 4 juillet Babacar li mu gis mooy nee na Mame la ah mbër la boo xam ne maanaam calculer ko jafe na trop ndax man bëree ga loolu lu am la loolu moom defe naa ne képp kuy ànd ak mbay guy gi war nga xam loolu bi ci des mooy jàpp na ne mbay guy gi tamit mbër mu ambitieux la bien sûr loolu lay wane fi mu nekk nii dafa am dafa nekk ci yoon woo xam ne jàpp na dafa war a dee yegg fii gars yi yegg parce que tamit xale la te mu ngi liggéey kon combat boo xam ne dimanche ca arène nationale wala boog ca Iba Mar Diop ak Assane Ndiaye Baol production dina neex lool beneen combat bu nar a neex suba diggante Ndongo ak euh, Cheikh Tidiane soo soose bu Fass ne ñaari ñoo xam ne dañoo duwee ci wàllum bëre maanaam ay bëreekat bien sûr looloo am Cheikh Tidiane Niang Ndongo ay bëreekat pire pire pire ngay gis suba derby Fass Thiaroye ki ko wax mooy Pala Diop diggante général bu Fass suba ak ki nga xam ne ni moom moo di qualifié numéro 2 bu Caaroy loolu arène nationale lay amee ak Sambay derby la wax na dëgg combat bu doy waar la combat bu nar a méttee méttee métti loolu man maa leen ko wax bu nu continuer ba tey ñëw les arènes mercredi passé Iba Mar Diop ci stade ba face à face bi amoon ah euh, ci wàllum agendas ci wàllum physiologique ak yu mel ni ki noonu daal Siteu ah euh, Siteu ba Papa Sow 4 loolu la wax yëglikaay bi nan Siteu boo xoolee moo gagné. daa mel ni psychologie moo gën a baax ah du samay wax nag yëglekaay bee ko wax waaw ak lu mën a xew nag lii leer ci bisu làmb ja lay leere bu nu continuer ba te ci boobu yëglekaay Boubacar Niang mu ngay xëy di dëggal ne Pape Abdou Fall mi tëgg jooju làmb daal loo ci mën a dégg seen kuréel googu di les promoteurs moom démissionné woon na bu Boubacar Niang nag bu Ama Events moom moo xëy wax loolu waaw loolu moom moo ko wax waaw loo ci mën a dégg daal moo ko wax Abdou Diouf tamit ak li koy xaar dimanche moom combat am jéy seen moo ko tëgg moo Gris 2 bu nar a doy waar ca arène national waaw ndax nag Abdou Diouf daan Gris 2 dina tax tey ci làmb lu bare bare bari mu rattrapé waat ko parce que tamit toog na lu yàgg bëriwul te bi muy mujj bëri ci défaite la jóge kon defe naa moom tamit combat bu metti moo koy xaar dimanche waaye Gris itam lay xaar Abdou Diouf lu ko raw pour man moo koy xaar de parce que moom itam ci défaite la jóge te defe naa ne dañ koy séntu fu sori si làmb kon nag moom it am na lu koy xaar kon combat bu nar naa metti trop xulle dimanche bu nu ñëwee tamit bu nu jógee ci weekend boobu àllarba ja dañuy continuer ak ñi production idaal yi muy xale boo xam ne tamit wax dëgg yàlla ku jara ñaanal la parce que idaali maanaam mu ngi jéem lu mu man di taqale di def li mu war a def di taxawal ay combat yaa ngi dégg te defe naa xale buy def loolu kon ñu ngi ko ñaanal yàlla li mu dugg yàlla na ko réussir tournoi bi mu boolee boole amateuru làmb yépp ne gongo caatu Daawuda Fall war a dajeek Albarka Kayre Yankaw Junior ak Kaw Gourdin ñaari mbëri mbappat war a dajewaat tournoi ba continuer ñun déet na waaye nga indi euh, Ronaldinho ak euh, euh, def leen grand combat ba ci bés boobu di àllarba ji nu jëm ci arène nationale ñu ne déet ne waaye ci biir nga ndi mbay jom numéro 2 di safara di poulain bu Balla gay 2 ak école nekk école de Mor Fadam ah nga boole kook Ahmed Lagros mi nga xam ne nii poulain mbay guy gi la nekk école de Cheikh Mbaba wala nekk école de Bada Dione ah non i daal di tëgg nga lu neex te lamb nag pour man soo tëggee lu neex ji laajul bés de tëggal lu neex amateur yi nga xool parce que lamb ji bi mu ko njëkkee def tournoi bi kere àllarba la ko def idaali te gis nga arène nationale kere na mu mel maa ngi koy ñaanal yàlla la mu defoon la mu amoon ca satisfaction ba mu amoon ca bés booba yàlla na amaat ko raw ci bii yoon barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que tamit koo xam ne la ah olof ne na ku la euh, safooti nga faale ko idaali wax dëgg yàlla ku de gis na ne ba mu jógee ba tey lu mu am Equivox la koy indi lu mu am nit ki nag buy ànd ak yow jàpp la danga koy jàpp rek waa Equivox tamit defe naa ne delloo nañ ko ko ndax saa bu ñëwee fii li mu bëgg dinañ ko ko defal ci côté bu mu mën a doone te defe naa ne ay jafe-jafe du ci am loolu li ko waral mooy moom xam nañ ne jeune la am na lu mu bëgg ñi sanc fii tamit xam nañ la ñoom tamit jeune lañu comme moom te ku nekk àddina loxoy kajoor day weesu lu maanaam dañuy jàppalante rek te yàlla tax loolu mooy liy am ba tey defe naa kon loolu ñu bàyyi ci xel arène nationale mercredi ak ñing production waaye tey ji am na jàkkaarloo boo xam ne war na am diggante euh, bu Baba Diaw war a organiser fa nga xam ne moom mooy village artisanal tey 5 heures 17 heures moom Baba Diaw moom tamit mu koy nuyu muy promoteur boo xam ne vraiment exemple la parce que bëri na lu maanaam liggéeykat la te du wax waaw bëriwu di wax te kuy liggéey la te itam ku nangoo jàppale doomu aadama la ndax li may wax ni ñun wa équipe bu Vox Arena gis nañ ko ci seen làmb ji passé parce que ñëw ah xëy na xamante ba foorul à cent pour cent waaye jàpp na ne ay promoteur lañ koom ñoom comme moom ay gan la ñu ñëw nañ ci làmb mu ñëw dugal ci loxoom taxawu leen ndax nit ki di ko jàppale te du xaalis boo koy jox nit ki am bésam Habib nga ñëw physiquement taxaw wan ko ne maa ngi sa ginnaaw soutenir ko wala nga woo ko téléphone soutenir ko ak yooyu yëpp jàppale la yaa dégg kon defe naa loolu def na ko moo tax tamit tey dina def benn face à face ca village artisanal ndax ku ne xam na ne ki nga xam ne moo di double moteur Quench moo ko tëgg Zal Bawal caatu yarax moo ko tëgg te combat yooyu yëpp bu ci ne léegi mu yegg si kon moo tax ba nga xam ne daal yàlla na yàlla def jàmm di balu ñëpp ak waaye di nuyu Omar Tawa hmm? borom marché asalem ndax lii ma def nii moo fi jaar kenn du Omar Tawa yàlla na jàmmam yàgg doomu Saalum boobu Saalum Saalum yi moom xam naa ne noo Saalum bëri naa fa ay waay moo tax Saalum Saalum yi faw ma di leen nuyu Saalum moom yàlla na yokk na bawal yokk ndax nag fa nga xam ne bu sa ceeb nii nee fa lay jóge moom ah moom sàq boo sañoon du rës de kon maa ngi nuyu waa Saalum yëpp xanaa bu ma jëlee nuyoo bi teg ko ci waa ahlu ñaseen day tas dem waa Ndorong du mooy pencum sëñ Basiru xulle maa ngi leen di nuyu ñoom tamit di nuyu ña fa autorité yëpp ñoom Mariama Sarr ñoom Mimi Touré ah ñoom ñëpp ñoom Serigne Mbuub ñoom ñëpp ah. ak ki nga xam ne nii moom mooy Moustapha Niass nga xam ne tey mën nañ ne mooy mag ma ñu ngi koy ñaanal jàmm président assemblée di nuyu tamit na nga xam ne ñoo fa nekk ay opposant di ay politiciens di dëkk Saalum maa ngi leen di nuyu waaye di beral nuyoo nag Moustapha bi tey le jeune borom Petronas kooku moom ku ne xam na ne après bu ñu tabaskee ba pare moo ko waa Biba production ca Nioro loolu bu ko kenn jaxase day am bu ko kenn jaawale Biba production ak Moustapha bi tey borom Petronas ah ñaata jour lay doon ci tabaski ba sax ah quatrième jour bu ñu tabaskee ba pare ca biir ñooro lamb lay doon ak lépp loo xam ne daal luy tax dëkk ba yëngatu la ndax nag moom ca la ma dégg ci waa ñooro ndax ne li nañu borom la dàqe rawatina waa waa Biba production ne nañ lu bëri lu am ñooro ci ay infrastructure mën a jariñoo way juram moo ko fa def moom itam mu nekk xale boo xam ne ay atam bareegul macha allah yàlla na gudd fan waaye mu ngi taxawe taxawaay bu am solo borom Petronas yàlla na Petronas dem ba raw këri pétrole yi ne ci àddina bi ndax nag xulle maa la ko wax ku la safoo ti faale ko te fu laay jaay daqaar wala ma ñam jeexal ko ba beneen yoon